bon euh, jërëjëf euh, ku ne xam na ni boo xoolee euh, histoire politique bu Sénégal pas bu Sénégal rek bu pays africain yëpp bëri na ci ay ay jafe-jafe ay jàppante bëri na ci sax ay bakkan yu yu faatu ah. mm-hmm. boo boo delloo ci ci ci histoire ci taarixu vie politique ci mm-hmm. Sénégal mm-hmm. ak ci Afrique donc du ñuy wax ni guléet la loolu mooy sama problème cest à sama problème li yàgg am da ngay xool naka ngay poser moo tax il faut yenn saa yi ñu xaw a Euh, sori tuuti fait divers mhm. daa di xalaat ci ay principe mhm. daa di xalaat yoon ci ay pexe ci ay tëralin ba li nga xam ni amoon na dootul amati mhm. loolu mooy nga mën a jàng ci lu weesu mais gis nga bu fekkee da nga kiy topp benn benn naan kii sànni na kii kii wax na lii diw wax na la lii doo mës a xam dëgg-dëgg lan mooy leçon bi nga ci war a tiire ak ban taxawaay nga war a taxaw ba loolu nga mën koo gàttandu dootul ñëwati loolu la ñuy wax euh, xoddiku balaa ngay lakkale nekk sur le préventif te bañ a nekk rek sur le curatif. Mhm. Euh, xam nga boo dee xool réew africain yu ci bëri politique problème la fa te rawatina nag bu ñuy jege ay élection mhm. bëri na dëkk dëkku Afrique yoo xam ne bu ñu defee élection ba pare au lieu que ñuy compter ay xob ay néew la ñuy compter. Mhm. léegi loolu boo ko xamee nga xam ne yenn saa yi dafay indi ay tension xëccoo yoo xam ne yi nga métti dangay ngay jéem a xool loolu lu ko waral ak naka laay def ba saafaraal ko. man dama jàpp ne. Euh, waroon nañu mën a xalaat benn kuréel boo xam ni moom mooy gunge lépp luy politique ci réew mi. xam nga yenn saa yi bu ñuy defar ay kuréel ay institution dañuy fekk tubaab yi def nañu lii rek ñu ne ñun ñun tamit nañu def comme parce que tubaab yi def na wala lii duñ ko def parce que amul fenn ci àdduna bi. déedéet mm. mais ku ci nekk yaay xool yow sa problème mu bopp nu mu demee. Mm. ak naka ngay xalaatee kuréel yi ngay teg pour régler sa ay problème pour mu adapté wu ak sa sa problème pour ci sa yow ci sa mm. ay problème alors léegi. di ci kanam dinañ ñëw daal le monde lébu boo demee monde lébu am na ñoom ni ñu organiser woon seen république. Mm-hmm. ba nga parce que xamoon nañ ni dafay am ay conflits possibles yu fa mën a am mais organiser woon nañ ni am ay kuréel yu ñu teg yoo xam ne day gën a tax nit ñi di gën a xamante. Mm-hmm. Euh, day gën a tax bu ñu tegee benn charte ñëpp daal di tënku ca chart yooyu. loolu depuis xutbay Seydina Limaamu Laay yàlla na yàlla yokk mm-hmm. leeram depuis ci ay xutbaam organiser na penc moom dinañ ci ñëwaat xëy na kanam.